bisimilah teewal yàlla barke borom Tuuba barke moom si biir asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh juróom ñetti at ñu leer yi muy mel ni ñu amoon ci programme ñu séddale ci ay pàcc ngir faral pàcc yaakaar leer li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg ñu leer yi loolu nag pare nga yàq na sànq dama bëggoon a xëcc ngir ki ñuy dégg xam dëgg dëgg dëgg li tax a jug nu mu leeree xam dëgg dëgg nu mu leeree fan nga sosoo ak mbooleem ña ci ànd rek kon plan boobu ñu ngi ko defee ak mu xatam mu ngi ko defee ginnaaw loolu yëpp beneen waxtaan historique daara yi maanaam daara yi mu tàmbalee ba suñu yoon yi ay muy historique daara yi ginnaaw loolu yi danañ waxtaanee programme daara yi muy programme bi nga xamante ni maanaam daara yi da ciy dox loolu yëpp dañ ko waxtaanee ginnaaw loolu dañ waxtaanee objectif daara yi maanaam daara yi suñu gis gi dëgg-dëgg ginnaaw loolu yi am na fi ay jeexal yoo xamante ni ay mbokki daara yi ay mbokki daara yi unit take clear guide that next to the God does not come out and known to that why you look at that all the way down the then go then go the other why you think that you your time and you know it you know it you know it you know it you know it you know it kon dañuy tàbbi ci point bi nga xamante ni mu njëkk muy historique daara yi muy mel ni nuur daara yi mi ngi sosu le premier mars 2015 fii ci Touba Sampaate bi murid yi ko sosoon nag maanaam mën nañu ne lim tax du woon lim bu tax ku ñuy wax Babacar Diop mi nga xamante ni mooy jëriñu daara yi ak ku ñuy wax Amadou Ngingue nga xam ne moo ko ci jëriñu daare ak ku ñuy wax Birane Ning ak man mii di Ndiassa Sarr sunu magum taale bu ñuy wax Fane Dieng day mel ni ñun ñooñu ñoo ci ko waxtaanee daare ndax jiw li ñuy nekk ci gox bi day mel ni gox bu mel ni bii ñu lu mel noonu fu mu waaye ginnaaw ñooñu. jëmm nga jaar xel la. bu ñëw jëmm nga jaar xel la. bokk ci fédération man moo doon moo leen li nga xamante ne moom moo lëkkale élèves ak étudiants yëpp nekk ci gox bi ni Thiès Bangalore moo xombal ba ku nekk ñu newoon fa di ko yëngal bés muy le 23 février deux deux mille deux mille deux mille quinze. ñu demoon ziar ba ci ziar bu Tonga yi ziar bu mag moo kerkoo si genre bi ñu dikkee ko ziar ndongo yi ginnaaw bi ñu demee ba ñu bisi ci la ñu ànd. waaw nit ñi ngi jëwriñ ak man ñuy waxtaan. maam gox bi dëkk war nañ faa taxawal lu mel ni ñu di ko eh, e fa dundal ndax mu ku mu ràññee na biñ ciy waxtaan di waxtaan ba ci bokk koñ bi ci la ñu dajee xamuñu kenn am lu jóge wàccee ci warwaay bi wàccee xamal ko. wax ko liñ doon waxtaanee moom it mu rafetlu loolee ginnaaw bi mu ko rafetloo euh, ñu daal ci ànd bu ñëw ñëpp tàggatoo ñu semaine ba ca toog wala boo ba mu xëyee disposé ci lañ dugg ci koñ wër mbooleem suñu kilifa yi bopp yi nga xamante ni ñooy suñu wëy waxtaan ak ñoom ci euh, loolee ñu naan ñoom it ñu rafetlu ànd ak ñun dooleel te semaine ba ca toog ci lañu woo ne ndaje moo xamante ni li ëpp ci jànkeen xasida yi Cees teewoon nañ mboole muy di mu doonoon bis bu yaatoo yaatu ci bis boobu it lañu taxawal daari mu daari mu dëppoo le premier mars 2015 diiru loole ñu ànd maanaam di dox ci daal ba suñu joori ne day mel ni loole ñu yàlla ci historique bi sax lu yaatoo yaatu tey lu ci nekk mën nañ cee dikk ci détail waaye day mel ni bu boobaa waxtu wi mu ko mën waaye ci tënk daal loolee moo taxawal léeg léeg pour daal di boole ñeent ñi ñooñu waaye ñeent ñi ñooñu dama ci suñu ñebe te ni ñoom bu ñu amee idée mën naa idée ci ñoom la dee baare waaye saa borom dogal na ni mbooloo mi nga xamante ni ñoo ngi ci gox ñoo ca àndal ñoom dooleel ba lii mën a taxaw. ginnaaw booba it ak na mu wër ay mbokki taalibe di dem fi ñoom daan waxtaan ak ñoom ci doxinu daara ngir mën a structurer daara ji teg ko ci charte yu leer ndax biñ ko naane amoon nañ jafe-jafe kuy doon jëri ndax booba ñun ñi ànd ñëpp ay tuttànk lañ tey kenn ci ñun xalaat woon ni war naa mën a jiite mbooloo ndax fan tolloon ci ay jàppoon nañ ni mënuñu jiite mbooloo ginnaaw loolu ñu seeti woon suñu benn jëri boo xamante ne yàgg na ci gox bi ma ah, bàyyi daal mu xam mu xamul ñoom Fara yor daal jiite woon boo ko daal ma taal ma la ñu leen biir ñu leen bañ fa demee di waxtaan ak moom dañ daan bari li ñu daan dem ci moom di ko laaj di gëstu ci ci ci ci ci lu leer ñu jiital leen ci déedéet waaye daa am fu mu jaaral ñu la jëlee sunu xel mokkale ko ñu xam ne nii la doon dox fi mu jaaral ñu mooy da ko wax ni bis xasida yi Kees bi koy taxawal danoo jógee ñoom cant nekk ci kaar di ko waxtaanee naan bis xasida war naa am Kees biñ ko lay waxtaanee di ko waxtaanee di ko waxtaanee ba ba nosoo ba taxawal bis boobu biñ ko bëggee taxawal ñoom am jafe-jafe kuy doon jëwriñ ñu ne kan la xalaat bi njëkk a ci moom ñu ne ñu ne diw muy ci xaalis ba mu ne man ñu ne man ko def jëriñu bisu xasida yi ñu mu waxee ñu ne ñu xam ne teg nañ ci aw yoon doonte booba sax xalaat bi ci ñun ñëpp maanaam ñoo ca lancé waaye am na ku ko jëkk ci nga xam ne du ñàkk ko ñu dees mbooleem li ñuy naan yàgg nañ waaye tey jii ñu jóge ci soor bi di ko waxtaanee waa ki ko njëkk mooy suñu bàgg fa jóg tamit doy na moo ngi ñu ngi ma ne doy na euh, biraan di ma ne doy na ñu kon nan ko def ci lañu ko defee jur bi ñu ko defee jur am na euh, moom ku koy laaj deesu ko ko def bi ñu ñibbisee am na ma di gaar bi ñu ko doon yàq waaw dañu ne gàntal ndax dañu woon Babacar mboolem ñun ñu doon ànd moo ci gënoon doon tuttaan ci ay ñun ñëpp ñoo ko mag doon ay morom la waaye sax day am ñoo ko mag mu ne mu ne mu ne ñun kii kat buñ la jiite day bii ndax day tuttaan léegi da ngeen di bàyyi moom mooy jiitu moom bu ko ñu ne ko laaj bi ko laaj moo tax duñ la ko jox daal di daal daal ñu daal tey waxtaan bu dëppoo yëpp jiital ko daara ji di dox ba suñu jori tey kon lii moo taxaw daara ji bokk na ci historique daal am na ci programme yu yaatu yoo xamante ni daan nañ ko amal nañ ko am nit taw ci daara waaye point boobu dañ koy boole ci point bi nga xamante ni muy programme lëkkale leen mën nañoo ànd ndax programme yi bi ci jiitu mooy woote suñu baax bi nga xamante mooy màggal 18 safar nga xamante ni mooy activité principale yu daara mooy activité bi nga xamante ni moo jiitu ci daara beneen activité bu tey topp sottal topp màggal ginnaaw màggal am na it ay ziar bi ñuy def waaye ziar yooyu bi ci jiitu mooy bi ñuy ziar xarit dana la bi nekk ci Tuubaa moo xam ci jamono yooyu Serigne si Muxtaar lool moo xam jamono yi Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye ginnaaw loolu ziar bi te topp mooy ziar bi nga xamante ni ñoo ngi koy defal suñu ziar yi fii ci Thiès nga xam ne moom moo nekk ci Tuubaa ziar boobee moo topp maanaam ci activité yooyu mën nañu ñetti activité yooyu mooy activité principale daara ji maanaam activité yooyu nag ay activité annuelle maanaam at bi benn ay activité yoo xamante ni yii day sol ci semaine bi yii sol ci yooyu nag bi jiitu mooy lu mel ni suñu ndaje bi muy DRD nga xamante ne dimanche bu jot bi dina jóg. jël daara bi jox ko benn mbokku daara bi seeti ko jàng ko xasida waxtaane ko si tubaab jàngale ko soññante daal di yokk boobu moo ca topp ginnaaw loolu yi daara ji am na activité yoo xamante ni lu mel ni guddi àjjuma ndax guddi àjjuma moom activité bu varié ñu ngi koy defee wuute yenn saa yi ñu ko ci kër mbokki daara bi bu ko soxla yenn saa yi am na nekk suñu mbokki daara bi yoo xamante ni bàyyi gaajo leen wala ay kilifa yu nekk dëkk bi tey nemmeeku leen jaar leen la ñuy wax ñoom it daal mooy def yenn saa yi ñu jox leen yenn saa yi ñu jox ko mbokku jaar bi kon programme boobu noonu ajoo ci nafar yi nga xamante ni koy nafar ci ci daara boo xoolee lu mel ni altine kuréel deux dañuy nafar talaata kuréel un nafar àllarba kuréel trois nafar alxames guddi àjjuma moo fa moo jay tàbbi waaye àjjuma it kuréel bi day nafal xam nga moom am na ñaari bis yu muy nafal ci semaine moo kuréel trois ñoom ñooy seq bis boobu nga xamante ne ñoom am nga ñaari bis yooyu nafal samedi kuréel un dinañ ci nafal dimanche ñu def kon daara ji boole bés yi nga xamante ni mooy juróom-ñaari bés yi di ko dalee lundi altine ba dimanche bés yëpp am lu ñu ciy yëngatu jox ko ci tubaab kon loolu mooy programme yi nga xamante ni moo nekk ci daara ji di keneen daara ji yor daara ji programme yooyu nag mën nañ ci dikk ci ay lignes lu mel ni màggal bi ñu koy dikk taxawal yaakaar naa 2017 la dañoo sos boppam ñaari sunu xel nekk ci ni màggal mu woote kat kenn waruñu cee ji ndax ay murit lañ la bi ñu nekk ñun ñoo fi représenté si Tuubaa tey jàppal na fi. potentiel débat ndax bu dee at bi buñ ci defee yitte sëriñ bi jox ñu ko waaye bu fekkee euh, mbooloo effectif am na ginnaaw bi ci waxtaanee ñu waxtaan ak benn baay bi leer boo xamante ni tubaab bi baa ñu soxla mu yéwénal ñu ab waat kër boo xamante ni danañ di fa mën di yëngatoo màggal ci la ñu lancé programme màggal nga xamante ne bu fekkee delluwaat dellusiwaat nañ ci historique sax année bi ñuy njëkk a màggal ñu ngi décrété woon budget boo xamante ni un million deux cent cinquante ci lay toll. waaye yaakaar naa dañ euh, ko décrété demoon na ba xaw a sax am ay gàllankoor ndax dem nañ ba màggal bi des semaine réunion bi mujj ci màggal bi juróomi junni lañ am. nga xamante ni un pour cent bi liñ bëgg moom lañ daanaka bi ñu ñëwee réunion sax ñemewuñ ko woon a wax dañ ne rek li ci nekk mooy dix pour cent. waaye maanaam dëkk boobu ba léegi mboolem màggal bu ñu gën a bu ñu bu ñu bu ñu geneen da ca topp da koy jaay sax am na ndax fi mu nii dem na ba budget màggal bi ëpp na 3 millions maanaam ci ci ci ay ay ay xeeti derne kon programme boobu mën nañ ni mooy programme majeur ci daara ji li tax nag mu doon programme mooy ndigalu si kon ñu xamee ko noonu ginnaaw loolu siyaar bii bii ñuy siyaare seen euh, xar bi fi nekk si tubaab moo ci jiitu waaye ñun damay jiitu ci siyaar bi nga xamante ni mooy moom lañ dem si tubaab bi kon sokkee tam ndax moom siyaar boobu rek moo ko lay taay ni mu ko lay taayee lenn la ginnaaw euh, bi daara ji sosoo ñu ànd ak suñu bàyyi si siyaar bi suñu bàyyi misaal wax nañu wax ni doom day am na nañu ànd si siyaar bi ñu nekkal si tubaab bu ngeen demee mu jox leen aw tur ñu dem fekk suñu saa ci saalu boppam euh, maa ngi faa moo xam ne moom moo ko kàddu yi ñu tax a jóg mu rafetlu liggéey boobee wax ne daal di tuddee nag mu dere yoon euh, ginnaaw loolu ñu toog ci ab siyaar boo xamante ni dañ koy seetlu suñu diggante moom ziar bi ñu ngi tombé woon ak ñun 10 janvier si janvier bi ko siyaaree ba ko def mu sant kontaan ca lool naan ñuy wax ni waxtu bi bu jotee day leen ñëw gis jàppal nga xamante ni bis boobu it ndigal lañ ci am ci ci ci sëriñ Saar bi waaye ginnaaw bis boobu ci lañu waxtaan nag daan ni kat war nañoo ziare xalifa bu fi nekkal euh, sëriñ comme que dem nañ ci Saar bi nga xamante ni moo nekk ci tubaab Thiès yéwee nañ yéwee nañ nekk suñu liggéey ba noppi kon nag li des mooy tàggatoo dem nag yaatal liggéey bi fas yéene fekk ki nga xamante ni mooy xalifa suñu tubaab ginnaaw loolu ñu ne nanu dem tàggu si Saar bi loolu ndax. daara ji moom ni muy mooy lépp lu muy def da am ndigal ndigal ngi koy jëlee ci ki nekk ci baax ci Thiès muy Serigne Sadio bi ñu demee ci moom bi ñuy dem mën a jéem rek bi ñu am na suñu kër moom ak xéwal yi ñu ci defal ak taw feex yi defal ba noppi xam na ko suñu yitte ni ko nag dina bëgg a dem Touba ziar yi suñ ci mu tax fi nekk ci Touba waaye sëriñ Serigne dañuy dañoo wax ni Touba de ak fii rek a yem bi ñu waxee loolu xale yam daal ñu ñaanal ñu dem bi ñuy si nag ñu xaw a am jàpp ndax jàng nañu ci li ñu Serigne bi wax mënuñu koo firee ci nen tey njëkk loolu waxtaan nañu ba dajale suñu àddiyee ba wax mbokki ñaari bi dañoo war a dem ba jàpp daal soo ko dem di laaj si mu wax ñu loolu tey amoon nañu yéene façon nañu yéene yi moo leen digal li ñu Serigne bi jox mooy tool bi tax a bari tey wax nañ nit ñi ni leen dañuy dem ba ñu dajale seen at yi te boo gàncalee dem boobee comme nga daara ji soog a mun naa yàq lu bëree bëree bëree ci seen njëriñ ñu xam ci am jaaxle lool ci lañ waxtaanee ki nga xamante ni moom moomu tàggat ci fuyagul maa ngi di suñu jëriñ si ndax ñu bii mu ne ñu ndax ba ngeen di ñu mu ne ñoom ànd leen war a mel ko déedéet mu ni ànd leen ak mag ci lañ ñëwee ànd ak suñu baalu saa bi biñ demee baalu saa gaal ko sëriñ bi sëriñ bi daan ñu ko daan daan ñu ci jox ndigal daan ñuy wax ni lu ngeen di def ngeen ci jiital si baalu saa bi am na ñun boobu bi ñuy dem ci ñàkk xam waaye boobu xelam pare ni dañu teggi ko fi dem waaye bi ñu demee sëriñ dañoo retardé waat ko wanaat ñu yow ñu jox ñu xam-xam ñu mooy yoon jiital leen ngir loolee ñu ngi ànd ak moom liggéey da koy ñaan ñaanal lu baax sax mu yaatu ñu woon ñaan koo xam ne kon ziar boobee noonu la demee waaye sëriñ bi dèjà teg ñu bu ngeen dee dem mu ngeen ñëw dinaa leen jox lekk lekk bi ma leen di jox ngeen bu ngeen demee présenté sëriñ si mu tax ñu daal di daal ñu ñaanal ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee ba ziar des une semaine ñu daal di dem ca moom di ko laaj lettre boobee sëriñ heure mu ñëwee ngoon bu jot dañuy góor dem bu ñu demee mu ñu baale bés ba baale bés ba baale bés ba bu ñu suba la ziar ñu dem mu ñu baale bés ba bu ngeen dee dem fay jaar mu xëy gaare bés bi mu yéeg sept heures fekk nañu ñëpp mu pare di bëgg a teel a dem ni xalaat ñoo demee te yóbbuwul ndigal doole ci la euh, ñenn daal di daal di demee ci ñenn ñi xaar te ñoom jëwriñ ñoo demoon ñun di taxaw xaar ngir jëli doole bi ñu demee sëñ bi di ñàkk a def waaye ñu ne nanu nanu xaar ndigal bi bi ñuy demee comme que gox bi ñu dëkkee dafa nekk ci kaw bi bari na daay bi ma bu yàgg sax lu mel ni daay bi am na ñu ñëw mën bi ñu demee ñoom jiitu ñun ñu xaar ndigal bi ba jot ci dem bi ñu dem ci yoon bi lañ leen romb ñu ko ànd ñun ñoo leen jiitu am ci taw bi ñu yeggee tamit maanaam mën nañ ñu si si mokaan dañoo dañoo ñu yeggale ñu ba ci sëriñ bi ñu ànd si am daal jox lekk si si si mokaan keroog yaakaar naa daa ngi ku ñëw boo joxe sa àggee ba pare sëriñ bi. ki koy waxal yaakaar naa suñu xeetu sama loolu xaw ki koy waxal moo jël kàddu wax rek sant mboolem kat daara bi daara daara bi waaye ñun ñi nga xam ne ñoo indiwoon lenn moom moo moo waxalal moo waxal boppam ak ñun wax ñu ni bu ngeen demee yëppal di ay kàddu nuyoo ak i tànn ci charge bi nga xamante ni taw feex boobu am nañ ko ci ziar boobu diiru at yi ñuy doxee heure bu xale heure heure boobu boobu jotee dañuy dem ziar ji xalifa ñu nekkal sëriñ bi kon programme yooyu dox na ci daara kon bu ñu doon tënk résumé historique gu daara yi maanaam mën nañ ko ci loolu ndax doon na yaar na lool bari nañ jotaay waaye jotaay du ko mat kon ñu xam ni lu daara ci suñu saal bi di nekkal suñu Tuubaa fii ci Thiès waaye dafa tënku ci ci nekk suñu Tuubaa te xamee ko noonu ginnaaw loolu it mën nañoo leeral maanaam ci historique yi daara ñu daal li benn kuréel la amoon waaye dem na ko mi ngi ci juróomi kuréel te it maanaam bi muy door am na fi lu ñu tuddee ay programme yoo xamante ni programme yi jàng xam-xam ndax bu dee moo daan dañ daje fii ci seen baax daan ko tëral téere xam-xam yi soog a tàmbal am na suñu programme social bi boobu doon doon léegi ci kuréel ak yëkkati waaye njàngum xam-xam la woon ñu dem ba ci biir soppiwaat ko mu daal ay bés yoo xamante ne xam-xam maanaam ba ba suñu doole daal heure boo ubbee calendrier daal dañ ciy gis programme jàng xam-xam mu mel ni loolee daara yoo xamante ne seen seen seen maanaam xamuñ ci woon lu bëri waaye am na ñoo xamante ne daal def na ci ba fi mu toll amaana boo toogee sax mën nañ daal tëral tëral na ñu dégg rek ci am waaye sax xalaat bu jàng ko sax daanaka formé leen ba ñuy jàng ay téere maanaam boole xasida téere yëpp la ñuy jàng ndax boo xoolee gis bi ñu jub. ñi ko laytaale programme boo xamante ni programme mu jàng xasida ak programme mu euh, jàng alxuraan nga xamante ne am na ci bis bi ñu bi ñu bi ñu bi ñuy waaj bis bi génne nañ ay limi kaar bi yoo ne dañ ko war a jàng génne ñu war a jàng te ci daara lañ ko jàngee bokk na ci biir yooyu daan nañ fi ñetti taam te ci daara lañ ko jàngee lépp moom la daara ji waaye daan nañ fi ñeenti kiyaas ak benn bi 41 kiyaas te doomi daara ji ñoo jàng loolu jàng nañ fi li mu géesuñ ci astafurlah bi mu 313 astafurlah bi waaye jàng nañ fi juróom-ñaari taxis jàng fi juróom-ñaari tawbatu nasuh jàng fi jàng fi euh, boobu euh, ñaar fukk juróom-ñett ñu benn tawbatu nasuh ak benn chakawtu umuri wa zanbil azim jàng fi 70 chakawtu rabu jàng fi ñett suna rabu juróom-ñaari madal fawzin juróom-ñaari études trois cent treize mille cinquante wakkaam vingt vingt wakkaam yi ak isu euh, euh, vingt huit tofam jàng vingt huit malabu sifaay trois cent treize rab yi manqué wu jàng ci soixante dix sept jésu waaye jàng ci sept mawaali ak sept muxaddima muxaddama jàng ci soixante six mawaali ak sept muxaddama lan fi jàng ak juróom-ñaari ñu wilaaya juróom-ñaari jàng ak juróom-ñaari mafaatul bichri juróom-ñaari taysiir ak juróom-ñaari muxaddimatul fenn mboolem nit ñi nekk daal di am na limu zikr boo xamante ni maanaam membre bu ci ne jëwri nga la koo sant muy 1947 istigfaar astaghfirullah ak 787 basmala ak 313 euh, euh, laa ilaaha illallaah ak 100 1111 salaat bu waay moom ɗum ñi dirigé kono duwa no ɗone def doomiɗaade ñoo ko def te amaana lu mel ni jamono yi ñuy soog a door lu mel ni boo ko bëggoon moom di nga wër gox di nga jéggi gox bi moom waaye am ko ci gox bi moom saa borom da dogal di jàpp te loolee lépp mën na ko fee am buñ ko bëggee mu yomb lool te te te te sëriñ bi ci daara bi la ko jàpp kon loolee am am na kon ñu ngi tënk programme daara bi foofu gën naa ñu ñu ne jënd jiite lañ am mooy suñu mbooloo mii di mu daay képp ku ci taat tàmm bala ñu laa teg ci tuuti bàmmeel nga laaj ngërëmal sa borom am bi doy ñu def waat loolu ndax nit yi bu ko yor tarbiyu ko xalaat bi xaar yi bu yegg ci borom bu jege ci borom pour mën a di laaj ngërëmal suñu borom kon programme boobee li ci ëpp solo yi mun naa ni yàlla boobu la ndax ku nekk ci ñun dégg na sëriñ bi ni mu jàngalee ak yàlla xam-xam te ni ñaari seen yoo xam te ne dañoo war di ànd saa ñàkk ci doomu waaye bu demee ba benn mën cee ñàkk na doon xam-xam te nit am tekki kon daal moom li ëpp solo ci xam-xam la daal boole ko làmboo ay tekki mu sóobu na ñu sóobu dëgg-dëgg dox ngir seen borom sóobu boobu nag. maanaam ñu ngi koy ñu ngi koy yéwénalee ndax dox boobu moom xasida moo ci mën a dimbali ba ci sax li ma jiital sànni muy jàngum alxuraan di jàngum xasida di jàngum alxuraan di jàngum xam-xam ak wiyaan loolee xasida moo koy def ci ndax bari ndax am nañ am nañ ay témoins populaires yoo xam ne ay exemple la ci daara yi njëkk ñuy jàng xasida seen yitte newul woon ci jàngal alxuraan seen yitte newul woon ci ci ci ci ci ci. jàng xam-xam waaye ginnaaw bi tàmbalee mun xasida ci lañ commencé am décor mën a jàng alxuraan mën a jàng xam-xam mën a soowu ci ci yoon suñu borom kon maanaam loolu lépp xasida yi moo ko yéwénal moo tax daara bi xasida mooy base programme yëpp maanaam boo boo boo ko doon centré par exemple centre ba mooy jëm jëm jëm xasida ndax mooy mooy mooy taxaw taxawaayu. Cheikh Mbacke rek mooy taxaw taxawaayu Cheikh Mbacke kon loolu maanaam mooy dégg-dégg objectif daara ji ginnaaw loolu yëpp loolu objectif baat bi bii gunge groupe doomu aadama waaye objectif genre yi day mel ni jarul képp koo xamante ni nekk na ci faaw day yittewoo maanaam jëmmi li nga xamante ni moo nekk ci àdduna moo xam ay xéewal la moo xam boo dem ñu yittewoo moo xam ay labasaar la moo xam lu yittewoo loolu nag dafa am na ko loolee nag di ko yéwénalee maanaam daara ji ci am ay programme muy liggéey daara ji am na ay programme yoo xamante ni da koy da koy da koy maanaam ay tuutànkam ay mbooloo maanaam ci ñu ngir maanaam mën a jagal seen adduna yooyu programme tamit daara ji am am am na na ci buñ buñ tàmbee ci ci projet yi sax buñ tàmbee ci projet waaye daal kon ci tënk mooy daal di objectif am mooy modèle de société bi ci tubaab yi ci tubaab yi daal ñeneen ñi daan daan ñoo man maanaam ba xamal leen seen borom mu ne leen mu ne leen rek seen borom moom mooy objectif daal di ci tënk ndax it daal di ci tubaab ndax mboolem maam bi fi nekk ku ci ne ci ñun ci tubaab moo la fi bàyyi ku ci ne ci ñun boo ko laajee dañ ko sama morom fi mu waaye sëriñ bi moom fi mu mun a doon kon seen sëriñ boobu ñu commencé bi moom mooy jëmmi daara bi waaye sëriñ boo xam ne am lu bëgg ci ñun am lu bëgg ci taalibe bi ngir jariñ leen ci àdduna waaye jariñ leen de société boobu nag maanaam na ci ndax loo koy noonu dul sëriñ bi lott na ci waaye bu fekkee bëgg nañ ko teg ay programme jiital ci am xel ba noppi lay daal ko lay daal ko pas-pas sëriñ bi mën nañ ci kon modèle de société boobu sëriñ bi indi defar boobu mu bëgg a defar doomu aadama mooy objectif daara bi ci ci ci tënk loolee nag bu ci dee détaillé day ñëw ci projet yi nga xamante ni daara ji am na ko mooy ku wax defar moom liggéey li ko wax mooy maanaam lu ñu tuddee institut kon daara ji moom ñuy def dara doonte institution la sax institutionnalisé eggagul ci benn degré bi ci professionnalisme kon dox bi day tàmbalee ci ginnaaw bu ñu ko institutionné ba pare maanaam mu dox ci lu concret dox ci lu professionnel loolu objectif daara ji loolu nag li ko mën a may daara ji mooy li ñuy tuddee complexe maanaam day am moom daaray boppam am siège social am kër si tubaab boo xamante ni moom dama koy moomal boppam loolu dafa bokk ci projet yi nga xamante ni daara yi am am kër si tubaab yi tamit complexe lay doon mbooleem li am murid bi yittewoo mbooleem li daara bi yittewoo dafay am la koy jiitu mooy barabu jàngukaay boo xamante ni dañ fay yàq tànk yi di leen fa jàngal jàng jee résumé naa ko sànq comme modèle bi nga xamante ni moom la Cheikh moom mu tax a ci université mooy tout temps na li jiitu moom mooy alxuraan ginnaaw alxuraan majaalis ginnaaw majaalis ñu formé ko maanaam sur le plan professionnel mu am métier am une profession ba nga xamante maanaam dana mën a di ab jullit xaqat boo xamante ni day yi borom ci kaw suuf waaye day mën a doon citoyen boo a doxal suqali am doxam suqali daal di waaye suqali boppam suqali am réew kon projet boobu am na muy am complexe Seexul Xadiim boo xamante ni dana am maanaam barab jaamukaay suñu borom. moo xam barab bu ñuy jullee la muy jumaa wala jàkka moo xam mbaari xasida li ñuy jàngee xasida kuréel yi di fa defee prestation ak yu demee noonu moo xam ay saal yoo xamante ni que pour recevoir ay gan laay autorité moo xam ay dortoir yoo xamante ni que dina mën a accueillir gañ si tubaab yi mbooleem daal li complexe boo xamante ni maanaam jamono laaj na ko te mu dëpp bëggu sëriñ bi maanaam dafa bokk projet daal yi ba projet boobu sax moom la ñuy lancé maanaam jëriñ joxe na ci biir rek daanaka buñ ci biir ko lancé boo leen détaillé dara taxut a jóg jotaay mais information bi rek la ñuy jàllale nit ñi xam boo leen détaillé ya ca ya ca ya jaay nit loolu ba doxal ko moom jëriñ incha allah ginnaaw sunu ndaje bi dana dana dana ko dana teg programme bi nga xamante ni ci la ñuy def complexe boobee ñu jàppale fi allah taala kon loolu mooy bokk na ci objectif yi daara ndax bu nu bu nu bu nu bu nu bu nu bàyyee xel maanaam sëriñ bi modèle de société bi mu indi day mel ni ab murit moom autonome da koo ji da koo ji maanaam mënal boppam te daara ji toll la koo xamante ni maanaam doonte muy mënal boppam kenn mënal ndax mboolem réalisation bi ñu wax génn daara daal di ci benn autorité religieuse di sàkk ci moom dara demul ci benn autorité politique di sàkk ci moom dara demul ci benn borom dara wala benn dara di sàkk ci moom dara ay membre am lay wax ñoom tawfeex bi leen sëriñ bi defal ñuy daje di mën a cotiser ci xel waaye di mën a cotiser ci at bi di mën a cotiser ci doole ak ci mu mën a doon bay am réalisation yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal tey ci noonu la fas yéene doxee mooy autonomie ndax comprendre nañu adduna képp koo xamante ni dépendant moo xam koo mën a dépendre li olof di wax da lay da a sañal te daara kenn du ko sañal ku sëñ bi wax day doon mën naa ko benn état souverain maanaam ci ci ci ci ci ci ci réew parce que am ay entreprise boppam am ay cité boppam am ay waawaay am ay maanaam yoo leen li muy di teewoo ci société daa di moom dafay am loolu maanaam ambition la projet la yoo xamante ni daara ji teg na ko ndax finalité bi bëgg a yegg mooy kër xale day dugg ci daara ji ñu jàngalee ko alxuraan ci daara ji yaree ko ci daara ji tàggatee ko ci daara ji ba mu nekk nit koo xamante ni am na profession moo xam ingénieur agronome la moo xam ingénieur en génie civil la moo xam technicien la ci ci sàngam sàngam sàngam bu yooyu bu daje ñu am plan ci biir daara daara am différentes filières yooyu daara ñu am ci ay entreprise yi boppam ba nga xamante ni day mën a employé ak ay ay ay ay nitam xam ne dina mën a retardé ay ay ay ay nitam ndax doomu aadama tënku dafa baax ci moom heure boo ko bàyyee ci seen rek influence yi nga ne dañ mën na koo. mën na mën naa mën naa def ay at ci def ci moom dara xëy ay influence wala ay mu génne loolu loolu nga defoon ci moom nga ñàkk mais nag bu fekkee daara bi moom dafa wër topp ay élément li élément bi soxla yëpp ci àdduna am na ci daara moom bi gën a yomb kenn daayira yi nga xamante ne dañ koy taxawal nga xamante ni daanaka leer directeur de société bu ñu liggéey mën nañ koo seer bu dee maanaam ci xam-xam yi nga xamante ni moom la nit ki di teewoo maanaam diggama borom am na ñoo xamante ni ci daara bi mën nañ koo yëwee kon lépp ñaari poste yëpp dafa yàqu boo nee jàpp ku mën a doxal jàmm am na daara ji ku mën a jiitam réew mën na am na daara ji ku mën a doon sëriñ fii semaine bi am na hmm? semaine bi dañuy def waaw ku mën a yeggale ci yàlla sax boo ko xaw a naqaree wax la waaye jàpp naa ne am na koo xëy maam yegg na ci tolluwaay koo xëy na mën naa defal waaw yegg ci borom daa leen defal na ñoom ñu defal te yegg ci yàlla sax ci genre bi wax yegg ci yàlla mel na jàpp sa jëm ko kanam yàlla yegg ci yàlla mooy ku xelal moom nga génn yàlla daanaka am na ci maam gàttal seen xel génn yàlla loolu loolu loolu xam na kon nga xamante ni lépp am na ginnaaw loolu it ñu kuréele ko ak ay mal boo xoolee suñu suñu jigéen en l'occurrence Bani Saa bi ak jur jigéen ngay ko ñi ngi nga xam ne ne bone moom direct ndaw mën na ko mën na ko euh, mu bëgg maanaam mu jiital ba yenn saa li muy def sax mën na ko bañ a ci xel ci xel waaye mag ñooñu day toog seen ginnaaw di modèle di regard maanaam di yàlla dafa am yàlla wax kon yooyu yëpp am na kon day mel ni ñu mën a mobiliser kàddu gi tey mboolem yaakaar naa li ñu fi wax képp koo xamante ni yaa dara ci biir daara te fa mu tàmbalee ba fu mu yem ak ay objectifs yu bëree bëree bëri mën na a nekk kon day dañuy tënk foofu kàddu yi maanaam di jaar ci moyen bi nga xamante ni mooy témoignage yi nga xamante ni ay magi daal yi yoo xam ne ñu ngi ci biir yi ak ay mbokki daara yi yoo xam ne ñu ngi ci biir daara yi ak ñu nekk ci biir yi ñàkk ñàkk ci boobu nag témoignage yooyu noonu ay parole la yoo xam ne dañ koy ko kon ñu ngi tënk foofu kàddu yi di sant di ñaanal ñëpp lépp lu jub ci kàddu kàddu ñu koy sant si ñun nga xam daal ci dégg ñu koy jéggale xam ne li ñu naan loolu ëpp na a liñ bëggoon waxtaanee ci daara ëpp na nii waaye wax moom dafa xaw a jafe tey amaana li ne ci bopp bi ko ci daara di xam mbaa li ne ci xol bi yenn saa yi yaatu ko day xaw a ñàkk loolu nag bañ a jàppale loolu képp moo waral ñu dem ci ñoom kon ñu ñaan Cheikh Mouhamadou Moustapha saa ba yàlla mu gën a ko ñaanal suñu bàyyi di ko ñaanal suñu bàyyi sax di ko ñaanal suñu bàyyi la ñaari ñoom ñëpp suñu borom wéral ngeen sa si ñu ci barke sëriñ bi kon ñu ngi tënk foofu kàddu yi incha allah taala. vingt-sept mai vingt